jubluwaay bi tey moo doon vraiment euh, remobiliser les troupes vraiment euh, gërëm la président Macky bi nga xamante ne dafa lancé une initiative pour vraiment tegaat euh, le pays dans les rails mu lancé benn programme économique bu am solo ñu di ndaw vraiment ñu ne nag lii duñ ci bay duñ ci duñ ci seetaan duñ ci des gannaaw ci kaw loolu. vraiment ñu woo département de Pikine la jeunesse du département de Pikine pour que véritablement ñu approprier cette politique du président de la République pour que véritablement ñu mën a delluwaat dans les rails dëkk bi mën a dellu nu mu nekkoon ci wàllu économie. loolu bi effectivement moom la ñu initié dans les trois moom la ñu jàpp ne dañ ko war a def dans les trois arrondissements du département de Pikine boobu itam pour ñaax ndaw ñi. maanaam euh, euh, ne président de ko comme comme comme dañ koy initier mais jeunes yi du ñu am accès à cause peut-être manque d'information bu ñu am ci wàllu projet yooyu noonu ci dans ce sens on a initié véritablement euh, de de à la base convier les jeunes woo les partenaires wala ne leen yoon yii ngeen di jaar pour mun a jot ci financement yi looloo waral ñu bëgg a wàcc à la base pour véritablement euh, relancer le programme comme ni ñu ko waxee sànq rek xëy na li fi jaar dara bonu ci mais xëy na am na benn mauvaise interprétation bu nga xamante ne opposition bi ci boppam ñoom ñoo ko diaboliser ba tax yenn jeunes yi boo leen waxee waxi projet boo waxee waxi état dañuy jàpp ne ah lii waxi politique la waaye ñun tey jii on est plus que déterminé à véritablement renverser la tendance parce que loolu dañu jàpp ne c'est de la manipulation te ñun dootuñu doxati ci loolu dinañu gindi ndaw yi leen ni leen ne lii président Macky Sall teg seen i njëriñ yéen seen njëriñ la te bu ñu déglu ñi nga xam ne ñu ngi yàq seen xel pour véritablement bu di leen orienter si vers l' Benno Bokk Yaakaar la ñuy wax ñun au delà de APR Pikine nous sommes de Benno Bokk Yaakaar te tey ji li ñu fi wane tey wane na ne tey on est tous mobilisés division bi nit ñi yaakaar wax dëgg yàlla tey ku ñëw fii di nga jàpp ne di nga gis ne loolu vraiment. ay ay xalaat yu ñaaw la woon rek waaye tey wane nañ ne on est plus que déterminé à s'engager derrière le président de la république amul division suñu biir. ñun li ñu jàpp ne Abdoulaye Timbo moom la fi yàlla teg mu war nekk diriger véritablement la coordination Benno Bokk Yaakaar te on est engagé on est plus que déterminé à travers derrière lui véritablement pour le triomphe de la de la coalition Benno Bokk Yaakaar. c'est toujours regrettable quand même de perdre un l'idéal était que mbooloo boo koy am muy yokk mais boo ko wàññee ko bu loolu dafa di nga xamante ne neexul ci xol taxawal nañu véritablement ay ay ay ay ay jéego yu nga xamante ne ñu dem daan le sens de réconciliation ñooñu ñëpp tey ji jàpp nañu ay frustré lañ am na benn ñàkk déggoo bu amoon suñu biir bon peut-être ñàkk manque de considération li ñuy wax ñenn ñi mais tere wul loo ci gis rek ay niveau la ñun bu incha allahu rabi dinañ jox yi jego pour jéem a rapprocher ñëpp bon ñoom jàpp nañ ne boolewuñ leen ci dara loolu rek la mais terewul itam ñun doog nañu bis ni ki tey dox jéego yooyu pour rapprocher les partis bu ko defee ñu liggéey vraiment ci benn loxo ci benn baat muy kaddu benn bokk yaakaar bi nga xam ne président Macky Sall moo ko dirige foofu incha allahu rabbi xam naa ne jigéen ñi ñoom le mot donné donné ñoom ñu ngi waajal def mobilisation bu rëy te gëm naa ne incha allah man personnellement li ma la a wax ci loolu mooy ne jigéen ñi ñoom à leur niveau vraiment ñoom peut être dinañ mën a tontu si wax jooju waaw mais ñun jàpp nañ ne dañ leen jàppale si li fi xewoon ñun wane nañ ne la force principale politique fii ci au Sénégal reste le Benno Bokk Yaakaar parce que pas plus tard que élection présidentielle yu ñu on a gagné avec 58 pour cent donc ñun pour ñun soo ko véritablement c'est un épiphénomène yëngaluñu parce que jàpp nañ ne véritablement que ñun ñoo on a la force te loolu la ñuy wane ni à travers la remobilisation def na fi benn tempête bu ndaw mais terewul tey jii à travers la remobilisation war nañ ko véritablement que nous sommes la force numéro un politique du Sénégal. Nous nous sommes réunis aujourd'hui autour de notre coordination Benno Bokk Yakaar Jeunes du département de Pikine qui regroupe une vingtaine de partis politiques et d'associations de jeunes qui soutient en tout cas le président Macky Et on a décidé en tout cas de donner euh, de marquer que dans la perception ou dans l'entendement de certaines personnes, nous avons pris la responsabilité, en tant que jeunes politiques, d'occuper l'espace politique et le terrain politique. Il n'y a pas eu de tempête. Vous savez, les, les Sénégalais ont l'habitude d'extrapoler ou d'augmenter de, de, des choses. Il n'y a pas eu de tempête. Il s'est trouvé qu'il y ait un moment, vous l'avez dit vous-même, euh, de, de, crise sanitaire, où vraiment l'espace le, politique a été vraiment déserté à tous les niveaux. Et je pense que là aussi, c'est des responsabilités partagées. Euh, des gens en ont profité pour mobiliser un certain nombre de jeunes euh, sous prétexte qu'ils ont été accusés ou complotés. À ce niveau-là, moi je pense que nous n'avons même pas pu discuter de ça. Puisque pour nous, le cas, je ne vais même pas nommer son nom, c'est un épiphénomène, elle est derrière nous. Nous sommes en train de nous réorganiser, en tout cas de relancer nos activités politiques. Ça me fait rire quand j'entends le plus souvent les 150 milliards revenir. C'est comme qui dirait que voilà une première que le président est en train de, de, de relancer économiquement euh, l'emploi et l'employabilité des, des, des jeunes ce que le président a fait pour euh, l'emploi et l'employabilité des jeunes, des jeunes depuis 2012 aujourd'hui, allez voir, l'information est, dans le net. Euh, aujourd'hui, qu'il a écouté les jeunes et il les a entendus. Il a compris qu'il fallait en tout cas rebooster ou redonner en tout cas du fil de, à, à, à, à cette jeunesse-là, les accompagner davantage pour que vraiment euh, qu'ils puissent avoir un, un, un, un bien-être. C'est dans la tête de ceux-là qui sont aujourd'hui contre le régime. Mais le président Macky Sall, en tout cas nous à Pékin ici, euh, nous savons que euh, l'organisation qu'il fallait mettre en place pour pouvoir aider ces jeunes-là, euh, à, à, bénéficier de ces, de ces projets. Ces, ces, ces structures-là ont été mises en place par l'État du Sénégal. Je pense que beaucoup d'entre nous en ont et d'autres en ont bénéficié qui ne sont même pas de, la mouvance présidentielle. C'est faire un mauvais procès de dire au président Macky que les milliards qu'on a politique, pour, l'utiliser dans, un contexte politique. Nous n'en sommes pas encore à ça. Toutes qui se sont succédées ici au Sénégal, le qu'il faut dire maintenant que voilà, c'est les 350 milliards qu'on a mis en place pour pouvoir en tout cas faire de la politique. Si tel est le cas, moi je pense que ce serait en tout cas euh, euh quelqu'un qui, qui s'assoit, passez-moi l'expression, euh, sur, euh, sur un arbre et de scier la branche sur laquelle il est assis. Abdoulaye Timbo est le coordonnateur de Berno Bokar depuis 2012. Aujourd'hui, nous, notre dynamique, ce n'est pas d'entrer dans des détails ou dans, dans des crises crypto-personnelles. La dynamique, est lancée par le président Macky c'est de nous unir autour de l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est quoi Le président a une mission, et une mission nationale, mission qui, qui, qui, qui demande aujourd'hui de renforcer le bien-être des Sénégalais. Nous sommes dans une coalition et je vais emprunter l'expression de mon leader, le président Moussa Fagnas. Nous sommes dans, une, euh, dans un train et à chaque gare, il arrive que des gens descendent et d'autres montent. Ça peut être une perception de certaines personnes et je leur concède cela. Mais nous, à notre niveau, nous n'en sommes pas encore ça. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis en tant que coordination de jeunes de Benno Bokoyakar et la dynamique aujourd'hui, c'est de nous réorganiser au niveau des bases et de pouvoir suivre en tout cas les orientations du, chef de l'État qui consiste aujourd'hui d'organiser les jeunes, de pouvoir les aider, les accompagner par rapport à leur formation, par rapport au financement et à l'employabilité et l'emploi des, des, des, des jeunes. Les difficultés, c'est dans tous les mieux encore dans un parti qui est au pouvoir. Moi, je ne vais pas m'immiscer dans les affaires de, de la PERC, qui sont mes alliés, que je respecte beaucoup. Il y a des problèmes chez moi, il y a des problèmes dans d'autres partis politiques. Je ne vais pas m'épanouir là-dessus. Aujourd'hui, notre mission en tant que jeunes, c'est de faire en sorte, dans, la mesure de nos possibilités, de réunir le maximum de gens autour de l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est